That's it. kër gi lu ci waay def rek ñoon la koy defal lu ci waay def rek ñun lañ ñun lañ koy defal ginnaaw bu yu baax yëpp jàllee nag baax na lool di natt léegi sëñ bi comme yii te toll boo seetee jotaay bii tey ñu ñu def fii ba jàng ci def fexe ba jàng ci xasida yi waxtaane sëriñ bi bu doon junni si bi dana wax naan junni nit bu ci xeet kenn ko defal junni nit bu ci xeet kenn ko defal te foofu dana am ñoom njëriñ. loolu nag moom njëriñ bi day tasaaroo ci njaboot gi di tasaare ci famille bi yàlla na ko ba yàlla saxal ci barke Serigne Saliou xam naa nag tuuti rek ay kàddu yi néew lay mujjantale ndax waxtaan ak ñoo xam ne li ngay wax ñoo la ko gën a xam déglu gi ñuy déglu moo tax dañ ciy xamee loo ci xamut di ci xam loo ci bàyyi loo xam ne war nga ko cee defaree daa am kàddu yoo xam bëgg naa rek ñu ñëpp nag ñu mujjantale ko ñu xam ko daanaka daanaka daanaka nag mën nañoo wax ni ndigal la loo xam ni ci ñun la jëm fab jataay bii nag jataayu Serigne Saliou bëgg naa loolu lépp ñu waxtaane ko ci ngir mu leer mooy li ci njëkk mooy dañ leen di fàttali ni Serigne Cheikh moom Serigne Saliou jumaa yi mu liggéey yoon ci mbuur dañ koy ubbi ak di ñëw Serigne Saliou si la damaa woo keroog ni ma sëñ bi moo wax ne nañ la woo wax la ni na nga waxtaan ak sëñ Bay Jóob ci ni jumaa yooyu dañ koy ubbi gëstu na nag ne ma ndax taarixu jumaa yooyu daa bëgg ñu def ci waxtaan ci projet bi ndigal li daay yàggut ñi kuy gëstu waaye buñ amee fuñ ko leerale danañ ko leeral nit ñëpp bañ xam ko ndax xam ngeen dañoo wax ni kuy kuy kuy kuy dimbali nit ci mbayeef la gën nag mooy fa mu wéeral boppam na nga fa tàmbalee jëm ca kanam waaye xam nga di dimbali nit ci mbayeef fekk la bay ko bay ko bàyyi lañ bayut loo gën a dem ñax ma lay gën a sëpp te day àgg foo xam ni mën naa indil gàllankoor gàncax gi mbaa boo ko bayee ñax ma imam Malik ñëpp ñëpp li moo gën ci ci ci ci ci ci ci ñeenti boroom ngir yi mooy Madina la yonent bi wàcce àddina kon nag la mujj la gën a wér foofa la nekk moo tax ñu ni kon imam Malik sukkandiku ci ngëram moo gën a wér sukkandiku ci meneen ngir meneen murit moom Sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou xam ngeen xaban xaban am na jumaa ju mu fa taxaw taxawoon bokk na ci yi noppi te mot ko ubbi àjjuma ji xaban nag na ngeen la sanc Touba muy sëñ Touba moo sanc xabbaan xabbaan xam nga xabbaan am am li ko dégg ngeen sëñ xanaa yéen ñëpp dégg ngeen ko boo gisee ci càmmoñu xabbaan tuuti boo doxee lu toll ak ay 7 kilomètres am na dëkk bu ñuy wax kër Cheikh Mandoumbe sëñ Touba digle sëñ ma sanc boo gënee jigéen tuuti am sëñ Ablaye Diaw am seex la woon sëñ Touba yi moo ko sanc ci loolu boo demee ci càmmoñ tuuti am na dëkk bu ñu fay wax Touba Dieng Touba Dieng maam Thierno moo moo ko sanc dëkk bu ñuy wax Daaru Njenne Cheikh Issa Dienne moo ko sëñ maanaam ni sëñ bi sanc sanc sanc Touba noonu la jëlee xabaam seet sax seex yi ku ne mu digal la ne la demal sanc fa moo fa dëgëral suñ suñ suñ sëriñ suñ màggat yi nga xam ne dañuy wax bu baax kilifa yu mag yëpp jaar nañ fa sëñ Touba sëñ sëriñ liggéey na fa liggéey bu rëy daa amoon yéene nag lépp loo xam ni diine dana ko bànneexoo mu am ko fa dafa nisiroon jumaa jumaa jooju suñ seex bi mu ñëwee dafa gëstu xam ni bëgg-bëggam la woon moo gar ci bakkanam defoon na jumaa ja ba mu dafa bëgg ubbi àjjuma ji ñu jëm xam ngeen xam ngeen biir muur yi tamit buntu kër sëñ Saliou ngi moom xam na jàkk ñu fa ne joo xam ni ba biir fii jógee joxoon na ko ay nit ñu koy liggéey waaye daa demoon ba ca kaw wax oh, joobare yi suñu borom def la ko soob sëriñ bi sëriñ bi wuy ji boromam ña doon liggéey daal di taxawal moo tax jëf jëf jëf te yàlla tax rek am solo jëf bu yàlla taxee yàlla bëgg ko jumaa jooju nag bi sëñ bi sëñ Cheikh ñëwee jàkka ji fexe na ba àggale ko anam nga gën a mucc mi ngi ci bunt kër sëñ am na euh, jumaa ju naaroon mu ñu moo sës wàllu jàkka wàllu wàllu garage bi sëñ Saliou dafa amoon yéene defar jumaa ju mel ni jumaa yu Ndiarène xam ngeen jumaa yu Ndiarène noppi na ci jataayu sëñ Touba mu doon jumaa ju yéeme yéeme joo xam ne ba dëgg ni niñ def ba tabax ko jaaxal na borom xam-xam yëpp ñenn ñi nag nee nañ ci xam-xamu sëñ Issa Diène la ko defee waaye xam-xamam mooy xam-xamu sëñ Tuubaa rek te xam-xamu sëñ Tuubaa mooy bu yonante bi te lu mu def yàlla ko def loo moo tax lu mu def na ci ay yoon alal moo laatu sëñ bi mujjoon na jaaxle bëgg gin ko bëgg ak yéene gin ci am ba noppi mu saa bu jógee yëkkati ci yàlla ko def na ci xaalis mu laatu defaat na ci xaalis mu laatu liggéey bi mu bi mu jot a def ci yoonu murid bi ci gën a rëy mooy jumaa ji ñuy nekk Touba Diarène ji nekk ji ñuy bëgg ubbi def sës ci wàllu garage bi dem nekk Touba Diarène da koy bëgg ubbi àjjuma ji ni mu def kon bi mu ko liggéeyee ba noppi sëñ Siidi sëñ Abdoulaye da ko jébbal mooy jëwriñ ni kër gi ku yàgg ci kër gi xam ngeen ne sëñ Siidi sëñ Abdoulaye ak sëñ Saltouré man de ba ma xàmmee ko lu sëñ bi yónnee am njariñ daanaka ñoom lay faral di yónni ñooy jëwriñ ni kër ñoom nag xam nga dañuy gëstu jëf fa mu war a teg rek lañ bi mu noppee daa jébbal lépp sëñ ni ko mi ngoog saa suñ jiw yi jébbal nañ la ko mooy itam mu demal jibbalal xalifa général di murid muy sëñ Sidi Mokhtar sëñ Sidi Mokhtar jibbalaat ko ko moom nag lañ war a ubbi àjjuma ji di ñëw dëgg la nag jébbali na ko day mel ni yoonu nekkul ci waaye ñun ñi nga xam ne ñoo di taalibe nañ xam ne am nañ sañ-sañ ci moom boo xam ne lu muy def war nañ caa bokk war nañ di ko feejal war nañ di ko xeebam leen nit ñi bëlu nit bëru nit ku bëgg lu baax lu tuuti tuuti ku la joxe kii di a xam ne kii tege dafa war a tege te ku tox ku taxaw moom moo doon te koo xam ni du jóg di jaamu yàlla te boo taxaw moom mu woon la jubag yàlla mu daaw boo googu demir ji ci yàlla lay dellu waxuñu la nag boo taxaw man ma woon la sama bopp maa sama njaboot waaye dañoo bëgg nit ki ngay topp boo ko toppee dana woon al hidayatu lillah dana woon